ñu ko ñaanal yan bi gën a oyof te mu gën a mën euh, li mu yore woon xale yi daal mais en tout metti na trop ba léegi euh, ci ci yan bi ci moom alors euh, de Vogue événement yi nga xam ne nii moo fa jàll muy BSD sa veut dire que vendredi samedi dimanche indi ay polémique yu bëri bëri ñu bëri doon xaar lii di retour Wally Ballago Seck keroog sax yaa ma koy wax si entretien bu ndaw bi nga xam ne ma yow def nañ ko nga ne Sénégal dañ ko namoon àdduna ñoo ko namoon maanaam fu mu toll nii gaynde daal am na ñu bëri nee nañ gaynde gi yëngu bu walla wala yëngu yëngu ko mhm. euh, nee nañ vendredi bi feesu samdi bi feesul na nga gisee kàddu yooyu le ku si gën a ràññeeku ma ki nga xamee ni seen adversaire la mun ni ko wax parce que kii di Boucher Ketchup suba teel la bokk def na benn déclaration bi nga xam ne ni ñëpp xam na ni dafa bëgg wax ne Wally Ballago Seck vendredi ak samedi feesu et eh, Idaal yaa fa woon <laughs> te man tamit gëm naa lu Boucher wax. gëm vendredi ak samedi gëm naa ni ñu waroon feesee feesaw ko même fekkee peut-être am na yeneen raison d'accord voilà merci beaucoup di wax loolu rek ne bu jëkk jëm maa ngi koy nuyu au passage suñu nawleel suñu lépp la ku ma naw allah parce que li mm. tax ma naw ko mooy euh, lenn daa bëgg ki ñu bokk euh, muy Serigne Touba ba du ko fawee mm. fu mu toog bala mu faa génn wax Serigne Touba tëjee moom la tijjee kon ma koy sant di ko gërëm mm. aussi itam li ko li ko gën a nawee mooy daa fonk parce que Seydina Mohamed coow li eh? bëri bëri wàll rek la bëgg loolu muy wax nag peut-être showbiz moo tax mu koy wax bon te noonu la mos a wax bu waxee leneen rek dañ naan ah, buuse gëmul boppam mais ku xam-xam ne bon image yaa noonu na ñu ko xamul ndeysaan ñu dañuy ñaan yàlla loolu tey mu nekk 10 suba mu mu nekk 13 loolu day am sant yàlla samedi bi moo gën moo gën a bousculé comprendre nga mais fees na fees na dell comprendre euh, def gisee ferme ba kenn mënu mënu dugg am na ñoo xam jënd nañ seen biir seen audio gi nii di amuñu fu ñu jaar pour dugg dañuy ñibbi waat kon sant yàlla waali ba muy defee gis affaire mu foog du tey rawat na anniversaire am ñëw mu defee ko fa kon gars yi yàqkat yi mënuñoo ñàkk yàq ba ba ñuy dee ba wàll di bàyyi woy billaahi walaay foog nga gis commentaire wala kenn génn ne waali xamul dara mënul dara deful lii mais ñun ñu nekk ak waali xam waali di topp waali jusqu'au bout dara mënul dara deful lii mais ñun ñu nekk ak waali xam waali di topp waali jusqu'au bout gis suñuy vidéo ku xool clip Dakar 221. Mhm. xool télé Sénégal. Mhm. xool ne Wally Seck fépp foo xam ne woot na fa day fees dell yàllaa ko def mhm. mooy le centre di peuple loolu pare que moom mais gars yi waxkat yi mënul ñàkk. Boucher nag bon ñoom demoon nañ Londres. Pape Diouf maa ngi ko nuyu au passage demoon nañ Londres Babacar Diaspora moo ko tëgg. xam nga nañ wax ci loolu moo gën. Ah. nañ wax ci. ci yooyu caraf caraf nañ moom moo njëkk daal di dem fële sa Angleterre ànd ak sax ñëpp ñi nga xam ne son son photographe ak Kourma son son photographe ak ñoom ñoom ñëpp gis leen alors euh, Pape Diouf yi d'accord euh, ko yaakaar woon demewul noonu mais tamit Angleterre la Angleterre du xam nga demul noonu waaye dem na Angleterre. waa nu mu mel non bokkuñ sax bu ñu wax ay waale ak ay. non pourquoi ngeen bokk waxewu ma waxewu ma foofu quoi parce que ki tëgg ki tëgg événement bi sama xarit la Babacar Diattara koo xam xam ko jàmm vraiment Pape koo xam xam ne yow sa xarit la euh, sama grand frère la ko Pape Diouf barke Cheikhul euh, Khadim bébé Bass sa xarit sama yaay la ñoom song ñoom Baf Diosora ñëpp seen xarit lañ samay xarit lañ mais tamit comme ni ko waxee léegi sa wax yaa yaa ko wax léegi sa biir wax ne hmm. bu si ko ku xar xol bi waali balaa nga siy fekk mais terewul tamit ba Waly bu mu amee faay mu ne carrément Waly am na faay donc yow am nga droit Pape Diouf bu amee faay nga ne carrément. non amul faay euh, Waly amul faay da wax lu ko neex rek Pape Diouf tam gisuma ci faay dama ne na wax ci loolu laa wax gisuma ci faay gis naa image yi nit ñi ñëw nañ vraiment parce que ku ko tëgg ni mel Babacar Diaspora bu wootee xam nga ne monde bay ñëw barki Serigne Saliou Mbacké nit ku baax la première émission première édition mu tëgg Pape Diouf fële ca di ko ñaanal jàmm déwén incha allah yàlla na tëgg Waly Ballago Seck le centre du peuple beneen at mu tëgg Siri Diop artiste nekk yëpp maa ngi ñaan ci barke alxuraan lépp lu mu laal incha allah yàlla na gën lu mu laalul Babacar Diaspora nit ku baax la mm-hmm. ko xam ne dafa xam événementiel ñu ngi koy defee mm-hmm. Diaspora event ku nekk xam na ko macha allah mm-hmm. tey mu ànd ak Pape Diouf tëgg fa Londres mu réussir dama koy ñaanal jàmm mu jëkk ko incha allah mais Boussy daal xam na moom xam na dafa dafa dafa am Ousmane démb xam na ku nekk dafa am démb démb day waxtaan ci émission bi du bees dañu euh, wax lu am solo maa Ousmane mooy li ñu wax mooy est-ce que Pape Diouf wala Sidi Diop bu tëggoon vendredi soir def entre vingt mille dina am lu Wally Ballago Seck am yow la mooy doon sa xaalis. non mënuñu ko dañ koo xalaat dañ koo xalaat ñoom dañoo mën a dépasser dix mille francs deux uñ la ilaha illallah dañ koo ñeme dañ ñi xalaatuñ ko buñ ko duggoon seen buntu kër seen buntu kër laa de au lieu que ñu jël boîte hmm. seen buntu kër ñoom barke sëñ def ay barrière tëdd seen buntu kër barke Seexul Xadim ñi mu ñi mu ñoo def vingt mille du kese ñi mu ñoo def vingt mille barke Serigne Saliou tegale 3 jours kan moo ko mën def ci Sénégal kan limal ma ko. non limal ma rek. moo Dieng. 3 jours. waaw kan moo ko njëkk moo ko def Sénégal. non waa waa def na ko mais dama ni waaye loolu c'est la première at bi fu dëgg vendredi samedi dimanche def entre 20 minutes. te defu ko benn yoon de yàgg na ko def. waaw bi ko def Europe ak def na ko États-Unis waaw jours. def na ko euh, Espagne. Mhm. kan moo ko ñemee. mais mais mais moom mais instant yi Momo Dieng mën na ko. Momo Dieng moo fi tëgg COP 21 17h ba 22h. entraîneur la. entre guillemets. mu ngi noonu. plus consommation. non dëgg la ay plus consommation mënuñu ko ñu xam la ñemewuñ ko parce que askan bi ko parce que duñ fa dégg lu leen neex boo amul temps nag nga fa dem dagg sa dix mille francs mais vingt mille francs waale bu yi xam nañ kenn ku nekk xam na kon mooy sa bàyyi ñi nga wax nii. bu ñu yeewoo trois heures du matin ba seen bëti génn boo leen ne kan la la wax nànk xam naa li ma la wax nangul naa Momo Dieng macha allah mu ngi prouvé parce que label bi mu nekk moo baax. Prédar ku nekk xam na ne macha allah fu mu nekk mooy ndëmba wan ci label bi. maison production yi voilà maison production yi comprendre nga mu ngi ci yoonam mu ngi génne album mu ngi ci macha allah mais Wally Seck du seen morom ci lenn mooy seen xalifa général de la musique sénégalaise yàlla dogal mooy seen baay ah ala kulli alin muy keneen ak Momo Dieng keneen ak keneen. je mhm. comprendre nga. Mhm. sëñ Bada sax fa mu jógee woykat bi su su yaruwul nangu ne mhm. moom day aw si wala déggoo ma. parce que gars dañu ñëw nànk-nànk xam nañ kër gu baax bi mu nekk building appartement du ñu benn sama gars yi barki Serigne Saliou appartement booy sumi seen daal muy fees benn yéen artiste ñu yor ay jox bu ñu sumee seen dàll doo am foo teg sa tànk building lañ yor mais seen building bi léegi fàtt nañ ko de non waaye jàkkaarloo yi fàtt na ko moo tax c'est le centre du peuple waxal leneen <laughs>